am teggin waaye yàlla moom waxee ko noonu dafa ne yàlla danga nga dee wax yàlla moom ñëw fi làqutoog noppaloog nelaw déedéet dee la wax kum ko wax sayduna muhammad yàlla dafa yónni jibril wala yónni benn malaayika armeel yaa ngi gis nga boo xoolee ñii ñëpp dañu tëdd tey ñi leen fa indi woon tey koo waxoon ana sa danaan xawma ko ko kon ku xamul kii fa nga ko defoon kon xamoo ci lu mu ne yàlla moo tax mu ne su ngeen bëggee waaru jaru ngeen tax naan islam ni islam naan dem leen ci armée rek ngeen xool boo xoolee ñu fa tëdd ñëpp ku ama ngi fi ku ñàkk a ngi fi ku wéranu ngi fi ku siiwanu ngi fi ku xamoon dara ngi fi dofa nga fi lépp ngi fi mm-hmm. kon yàlla mi leen tëral foofu ah buur boobu de ku mu wax defal nangam war nga ko def ci kaw boo amee xel yàlla bi mu yónnee malaayka malaayka yow rasulullah salaam ci juruf juruf jaara amina benn barab bu nekkoon Madina la te boo ko dee xayma mi dafa mel ne président de la République fa mu nekk palais ba mais rassemblement mosaan am président war a yemal ay soldats yu dem ci beneen réew kaa jël Diop o quand Abdou Diassé lay dem Abdou Diassé boobu nag bu fa ñëpp ñëwee ba toog fa yàlla yónni malayka benn malayka bi mu ñëwee ne yaa Mouhamed fekk délégation ma fees fa dal yontu bi na labayka mu ne ko asma asita yow Muhammad dundal ci dee nga jëm ñëpp na pat pat waa mais attends boo xoon ee eh, yéen hum hum ci arab mooy yéen ci dee ngeen jëm dañuy dee mais dafa ko da ko adressé Muhammad Rasulullah ka ka mooy ee eh, yow jële lu neex nekk ci lu neex di nga dee ñëpp na teg ñeen yi pat pati waaye rasulullaay xam ne kii wax kan la mun ko fa ahbab bëggal ànd la neex maa la nga xam siitu soob na la waaye fa innaka aw fa innakum mufaariqun yow Muhammad di nga dee yow Muhammad bu dee ñëwee day fekk ñi nga àndaloon benn da nga dem bàyyi leen fa mu u dem bàyyi def mu ñaari baat ñetteel ba mu ne ko fa amal sàkkul fa fa amal amal lu muy am dool soxna utal ay tool utal ay bitig utal ay jur utal utal utal utal lépp teranga àdduna la yàlla ne ko bu dee ñëwee nga ñàkk ko du tee ñu audité la ñetti baat yi dundal da nga dee dee na àndal ko leen xam ne ngeen tàggoo tàggoo nañu sàkk lu neex dee na waaye lii nag boo gisee may ni ko mooy àdduna bi ñi ëpp tey alal àdduna da leen këf ba amatuñu sago mm-hmm. nu ñu mën a fexe ba rey nit jël alalam ñu ngi ci nañu fexe nit mu nax ko ñu ngi ci nañu fexe bi def détournement ñu ngi ci te kullu nafsin bi ma kasaba rahinu ku tëdd fii ñii tëdd fii nga xam day du jaas mukk waaye yàlla na yeex lool ah kuy suul ba na wëriñ ñi yàlla yebaloon ca yonente bi daañ ñëw dana këpp këpp keroog yàlla nañ am sago ba muy wax ñu tontu ko te tontu boobu yàlla na yàlla leeral suñu làmmiñ te nooyal ko lool buñ ko tontoo rek solution man a am portable daal li muy rëy rëy rëy bëgg woo nit amu crédit du jàll. portable li muy rëy rëy nga bëgg woo nit amu crédit du jàll waaye nag man nga maa message waaye nga nga jox ma may ma crédit bu point sargal mi ngi fi. Mm-hmm. Euh, euh, euh, yooyu def ci port bi ba nga mën a collecté bi mu ngi fi. waaye kon xam nga yàlla jox nañu leçon kon nag kenn du Seydina Mohamed kon ñun suñu rëcc rëcc yëpp. nañu jàng alquran nañu julli na yéenante lu baax su rëcc rëcc yooyu yàlla neen danaa leen ko baal ci kaw bu ngeen toppi Seydina Mohamed léegi nag euh, Abdou Fall damay gis bu faatu amee nga dem ci armée coow coow bëri fa ku ne wax mais xamuñu ne jànguñu diine et puis ñi jàng diine war a jàng fiq lan mooy chariatu règlement intérieur islam Sénégal dañ ko tële mm-hmm. da gis ñu sang nit nit Euh, ma wax leen loo xam ne bii ngeen baal man dama ko dund. Hmm. man association ñuy waaraat Sénégal may coordonnateur national maa ko keroon ci jamono Ablaye Wade sëriñ sépp bëgg ma ma bëgg leen al amin bu sëñ Babacar Sy bu Seydi Hadj Malick bu Cheikh na Tidiane bu Seydina Mohamed hmm. avant mu dem àjjana man mii la woowoon moo woo ñoom Tayib Socé ñoom ñëpp dem Tiwaan fekk ko fa xam nga lu mu ñu doon doyee ah. Hmm. mu ne Imam Moussa Gueye monsieur le président Fatou Bintou Diop ngi toog. ñoom Mor Thiam nga fa ñépp nga fa xam nga al amin lan ñu soxla woon jàngaleen nit ñi ni ñu sange néew bañ fa demee Tiwaawan toog nañ ma boo deux heures di matin deux heures ci suba une heure ci guddi loolu rek la ñu soxla jàngaleen nit ñi sangu néew ndax ñu bëri ñu ngi sangu waruñoo sangu nii la ñu ko waxee de ñu bëri ñu ngi sangu mënuñu sang waruñu sang te xamuñu ni sang te tiwuñu seen lami te maanuñ selluñu si Malick keroog ñaari million lañ jël ne maa la ko jox def leen ko paas te bu leen ko denc jure benn fan mu dem àjjana loolu nag kon tey bokk na ci mawduu thème bi may waxtaani mooy mu fa da gis koo xam ne bii day faatu ñëpp yi naan mbel mbel mbel mbel mbel xam ñu ne doomu aadama gën àdduna te Seydina Muhammad nee na bu jullit faatoo ka koy na sol lu weex sawbul abyad bi maanaa xoolal na sangu na sol lu weex même kay gas kàmme bàmmeel ba nay sangu nay sol weex mhm. yonte ba ko de même ki gas bàmmeel bi cotisation yi ñu ko jox sax mën na ñàkk yonte bi neen alal jam alal jam jam bàyyi woon na ci na koy collecté di ko denc ñu fay ko ki ko sang fay ki gas bàmmeel bi loolu amatul bi ci des Seydina Muhammad nee na moytu leen dem ci armeel yi di wax day tax nit ki sa gàtt fan am lool te dafa bëri yonent bi neen bàyyi leen dem ci armeel toog ci kaw armeel ba léegi ñu suul nit am ko toog ci armeel jaamur tere na ko Rasulullah nee na bàyyi leen dem ci armeel di julli farata même julli néew kenn ko def ci biir armeel ca bitti ca mbedd ma aw ca jàkka ja Seydina Muhammad ko wax sallallahu alayhi wa mu ne nag bu ngeen dem ci armeel bàyyi leen lépp ba mu des loo xam ne bii yàlla ma ko sant ma sant leen ko mooy allahumma igfir lahu aw allahumma la laha ndax booy jigéen la hu góor la mais boo duggee ci armée bi li nga wax allahumma ixfir lahum mbooloo la kon ñu ci armée bi yëpp yàlla jéggal ma leen am leen xoso mooy wer rek ak teg teggin ndax lan ay nit ñoo tëdd fii te yàlla moo leen fi tëral moo tax mu ne bu leen fi julee ndax fii bàmmeel la bàmmeel kenn fi jul xam nga ba bay passé nee naa leen xooleen kaaba ga lu weex loolu armeel la mais bu julli jotul ñëpp dañ fay taxaw ñaan mais julli jotee dañ leen di génn ndax armeel kenn ci julli te Kaaba ga la sàkkatam ak kon ñun pour ñu am respect sénégalais surtout bu ñu dem ci armeel yi mën nañ tëj suñuy portable te moytu di filmer deel benn mm-hmm. képp ku filmer ci armeel bala ngaa dee di nga torox ndax lan bu ñu leen néew la mooy ku ñu yiir néew la mooy ku ñu suturaal mm-hmm. ngi ñëw ñu koy ñu koy filmer ni lu dangereux moo ko accidenté di nga gis ko accident ba am fii ci biir Sénégal am ñu jaay bàyyi ko ca koñ ba guma daw dugg ci oto bi di fóoti gars yi seen jël seen xaalis mbaa ñu xoj la ba nga dee am na waaye alam alam bi anna allah yara xanaa gisul ne yàlla ak leen gisee sànq rek ngeen baal ma sànq rek taxi bi ma jël ba indi ma fii nee na benn waaye ci Padois oto ko mbëkk mu dee ci saasi. taxi ba mu ko rombee ba tey taxi bi da doon jooy ba li ma wax ci jooy. man ko mais góor lan la mu ne ma man daal. aéroport laa bàyyi ko ñëw ba Padoa gis fa ku tëdd dara ji sànk ma droite fekk faatu na ñu ne ko ma ko daw na man ko daw na waaye rëccut yàlla miy niital yàlla na yàlla jàpp ko mu taxoon foofu xam ne li mu def metti na ko ci xolam mais neexu ko mais yàlla ko dogal waaye rey nit daw rey daw yomb na waa xanaa fekk nit kay xoj ko mu nekk moo gën a bon soxloola te Sénégal yi bu ñu amul sens mm-hmm. neexut a wax ca kaw yow ma xam da nga dégg yuuxu yoo xam ne bii nit li mu lay won ak la ca moom nekk du benn moo tax mun kenn ci yéen du dugg ajjana te gëmoo yàlla mm-hmm. te gëm yàlla du mën a nekk mu ko te bëggante ndax bëggante nañu mm-hmm. ñu ne nag léegi nag armeel bi ñëw ci sang néew soxna jaar Amina mm-hmm. képp ku dem màkka xam nga da armal soo armalee sa kanam kenn ko muur bu faatoo kanam gi lu tax ñu kenn ko muur parce kooku malaayka ku yóbbu ko jox caabi këram àjjana war nañ ko gis bu dina gis waaye bu dee ba di ko suuli nag day jël benn fulaar def ci kanamam mais buñ ko bu sa faatoo danañ ko sang nag attention dañ ko sang ci kaaba gi mais yëre yi kenn ko dindi wala bu ko sang ba xam ne tooy yëre yi tooy na malaan mi tooy na wala arama bi tooy na dañ ko génn wañ ko moom diis ñu dalaw sa taxal taxañ ko ci bu dee matul nag ñu muur kanam ko tuuti ba ci baat baat bi bàyyi tànk yi feeñ mais nag comme léegi développement am na. ñàkk loo xam lépp dana mu sóoraal waaye bu ñu ko indi ci kaaba gi di ko tëral ko julli ndax ku aramal la karam ak kenn ku muur loo tax may furu màkk nag dañuy suturaal muur sa karam ma bëggoon daal léegi. Mm-hmm. daa il kasira min annaasi an yasulu ala janasa inda mawdi inda fa dafa naan fi xukmi xukmi diini fi haza laysa li nabi sallallahu alayhi wa sallam qad nahyu an salaati min maxribi na am nahyu an sallallahu alayhi wa sallam fi axrajahu tabaraani an an abbas radiallahu anhum mu ne anna sayyidina muhammad sallam qaal laa tasallu fi qabri wala tasallu an abi mufsid mu ne yastahihu kawnuhu abyad xadiisu inna abbas anna sayyidina muhammad sallam qaal labisuhu min siyaabikum abdi baydaa fa innaha xayru siyaabikum wa kafanu biha mawtaakum wastahu taxsiinu kafni ida maata almuharram wala yaxza rasuhu أن رجلا كان مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال خسلوا بماء صدر وكفنوه بصوبه ولا تمسوه بطيب wala taxramu raasihi wala ixraamihi wajha yéen itam Muhammad salaam li ma doon wax rek laa doon laa doon décorté que léegi nee na yéen ñi nga xam ne bii seen néew ak bu ngeen xam ak bu ngeen xamut am leen ci moom wegeel te seen wax ju bëri ci àdduna bi bu ngeen dem ci armée la mbaa ñuy sang ci jàkk ci noppi leen lenn woo leen ko wax lu dul di ko ñaanal njëggal ak yërmande bu ngeen dem ci armée la am leen teggin ndax ki ñu yóbbu nit la woon ku réyoon ci yàlla kon warmaal leen ko am na ñoo xam ne mënut a ñàkk jël téléphone moo ñan mooy ñi xam ne dañoo deele ndax léeg ma am ku indi ci armée la mbokkam jóge ci kaw ga wala wàcc avion war a ñëw fekk ko bi kon bu sa portable sonné jëlal yow en tant que kooku individuellement may nañ ko ko na alo foo nekk ñi ngi nekk di ko suul ou ñi ngi koy jullee waaye keneen keneen amul droit jël portable xam lu ko waral teggin Seydina Muhammad wax mais léegi nag technologie dafa avancé mais yonent bi mu wax lii ñun ñoo ko ci boole ndax it jamono boobu portable amut mun na bu ngeen dem ci armée wàññi leen seen wax wàññi leen seen xool wala seen comportement moytu toog ci armeel wala di julli ci biir armeel yi dañ ko tere te xam léegi nag ñun Sénégalais euh, ku ci ne sa téere sëriñ mën nga ko jàng mokkal ko lool mën ko tari lool mais lax Laxdari xamuñu ko dama ne ñu bëri seen téere sëriñ mën nañ ko mokkal ko lool mais ku la wax Laxdari li defar islam règlement intérieur li ci yàqu ak li ko rectifié mënuñu ko loolu heure mu ko passé. Mhm. kon wane jàng nu ñu sangee néew. barakallahu mhm. wane jàng nu ñuy jullee néew. wane jàng ni ñu comporté nakam bu njëkk. xale bu ndaw du jege sax fu ñuy sangay néew ba ba topp ci armée la kon tey ñoo jiitu ci armée xale yi lu ko may on ximaaya baa nga commencé dañ xam naa ne xel euh, fi ma tëjee rek mooy dafa am ñaan gu Seydina Muhammad ne bu ko ñaanal ñaan gi nag na ko yëpp jàpp ku ko jàpp tamit nga capté ko ndax Modou Fall ñaan def la mhm. mu ne salli mu ne salli bina ya rasulillahi ala rajulin min al fa samaatuhu yaqulu allahumma inna fulaana fulaana nag mooy booy ñaan baak agsi bi da naan diw turam boo ko ñaanal da nga waaja fulaana nag moo naan nit diw ibnu fulaana doomi diw min fi ummatika waj wa wa wa xablan jawaari qillatu wa min qabri wa azabi naari wa anta ahlul wafa walxaqu allahuma axfir lahu wa arham innaka anta xafuru rahimu xam naa jaara hmm. ku ko bëgg tamit man naa la ko mën naa la ko wax ñaan la goo xam ne bi rasulullah moo wax dee leen ko ñaan ñaan gi yàlla rus na ko koy ñaan mu delloo la ko te comme ñu am nañu néew néew yoo xam ne jiitu nañu am nañu yoo xam ne suñuy wajur ko sàkku ñaan ñaan yëpp baax na waa kii rasulullah da koo tàmm naan da leen ko tàmm ko seen néew léeg mu ne ci jafe-jafe yàlla teg ci moom loxo te nag kuy dem ku am problème bu nekk dem ci tribunal war nga am avocat bu baax avocat bu baax boobu nag mën na la plaider waaye na fekk tamit ñu rus la ndax bu ëllëgee bu ñu la baale bu ci delluwaat. Mhm. kon suuru bu taw ba an naa dama ada ma faata sarti tuub mooy rëccu loo doon defoon kon nañu jàmm yàlla mhm. xam ne politique bii àdduna rek la day jàmm day jàll dañ téye suñu ngor defaraat suñuy kàddu defaraat suñu suñu réew réew ba mu normal ndax lu ne lu ne jaar na fi mhm. jeex na nakam yàlla mooy ne rasulaay deel te rasulaay bu ko neex ba tey yàlla bàyyi ko fi mais ba waxtam kon ñii ñaan yàlla subhanahu wa nañu rafetoo nañ bëggandoo di ñaan yàlla borom subhanahu wa taala président Diomaye yàlla na yàlla jàppale ko yàlla yàlla suturaal ko yàlla dimbal ko loolu daal la amoon ci ba tey ji wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ustaas wala ngaa dem am na kuy laaj ba xam uh, julli ci xabru dafa aram dafa aram hmm? bokk ngi mhm. ah, xabru bàmmeel mhm. kaaba gële kaaba gi bu ko am na benn ron ron boo xam ne bii bu weex la xaajara asoo xaajara ak lañ fa denc ndax màkk nag am na fa juróom-ñeent at te historien jàng naa histoire jàng naa di jàngale kaaba googu boo ko indiwoon tey lu weex loolu ngi si boori kaaba gi toroo noonu. li ñu doon expliqué. lu ñu mhm. la. bàmmeel la xaa xaajara ak baay ak doomam Ismaïla la bu dee waxtu ñaan dañuy bàyyi mu fees dell mais julli jot dañ leen génne tax ndax bàmmeel kenn du ci julli kenn du ci julli mais Seydina Muhammad fi mu nekk ci biir jàkk la mais am na himaaya di maanaam am na benn giri. wala am na benn mur comme Touba. Mhm. ak jo parce que ñu bëri ñu ci wax genre sama mbokk yi nga xam ne bii dañu mën a dingat naan julli ci bàmmeel eh déedéet bu ñu jaawale xanaa mën a taxaw léegi sama kanam nii mu mu nekk de ma war julli amu fu ma jaar mën a ut dara wala benn brique brique bi moo tax ak julliwuma ja bàmmeel tax ma bëgg waaw ma ngi ne le ana ma so wala lu lu roon di weex nii mm. lii mm. ñi ci biir noonu ah ñi ci biir noonu bu julli jotee ah. xam nga ñu ngi tawaaf. mën ngaa dugg ñaan mi heure bu imam bi liqaam ñépp nañu génne ndax bàmmeel la. kenn du ci julli. kenn du julli kon nag naka la la la dagan fii dagan na Sénégal li fi araam araam na Sénégal. kon pour un respect la. julli néew ci biti lañ koy def julli néew ci jàkka lañ ko def waaye julli farata sax ca jàkka julli farata kenn du ko def ci biir armeel. Mhm. sallallahu alayhi wa moo ñu ko jàngal te muy diine ju wér peut-être nag nit a def ñàkk koo xam la. téere yi bëri na téere yi journal yi comme journal rek journal yi xam ne dañuy ay adversaire lañu wax wax la waaye li am solo mooy daal lu islam tere dañ ko baax. di ñaan yàlla tabaraka wa daal nañ xam suñu diine xam sa diine nag kenn ko làmbatu da nga koy jàng te ku bëgg jàng histoire boo yem ci benn téere da ngay jar ay différents téere téere yu jeex nga jàng su ko defee heure ndax ndax lan dingatkat yi bëri na ñu soxor bëri mën a laaj bëri na. asalaamaaleykum wa rahmatullah jaajëf merci beaucoup yaa baax a baax àjjuma bu jot.